boy bi ak suma paxo bi Moussa Balde tey nag Korka Street Talk la beneen bés la beneen time la another show another time another Korka Street Talk xam nga naka la let's roll it bam ay kaay leen loo leen di daw ah ana kankurang bi ana mu naka yaa tudd naka. Maman Touré Imam Assane Thiam. Imam Assane Thiam. waaw Imam yow loo ma bëgg a duural nag. ba xaaral. Uh. yow kay ñu sa show every time wan ba suba. Uh. maa ko seetaan du ma leen noise. ooyee. Oh, waaw kay doo dee noise. soo ma ma yow dama la sa show rek waaw léegi ah la dama correction. Korka. naam. du dana nekk si télé bi every day. dama bëgg pour nga kontaan rek ak keneen ak keneen mu kontaan. waaw ah, baax na. moo ma lekk la. Ah. yaa ngi baax tarap yaa ngi baax. yow loo bëgg a nekk school. man naa nekk docteur. docteur. waaw imaam yaa ngi baax. tarap. waaw ndox moo baat. foo wàccee si murung. bi booy lah, yes booy mau attaque booy naka lah. ah booy ya iba. baax. raba la man non du raba. raba lan man géwél laa. géwél Yeah. Yeah. yee waaw géwél wa muna la kii Eh taa la. eey bu ragal loolu ñu koy ñëw nii dara la la bëggoon a laajte nag. Ah, ah laajte ma mooy. waaw lan mooy monkey eat gong. <laughs> ah. monkey eat gong. waaw monkey eat gong luy loolu. luy gong sa? gong mooy gong mooy maanaam day am yii nii rek. Ah. yooyu noonu gong. waaw waaw monkey eat gong mooy monkey eat gong rek. waaw anga monkey. dafa am nit yi leen day dégg am monkey monkey xamuñ monkey mooy lan. Hmm. monkey dafa doon loo xam ne. Ah. mo ngi dafa doon comme ni malo bu tanga jir eh. diko tie malo bu tanga sauce bu seda awla ma yel xam nga malo bu tanga sauce bu seda yel xam nga non bi ñaka sa bir bi le yow xam nga ah. man xam na so qtv yen yalla ma gëna no tek len sem baram suma jamba do bro ya ba ko nga ay ba go yey yey yey yey yey yey korga may tura modu boy modu yes ban ah, River gambia bi fa la joge eh korga man gis nga man yooyu noonu yow yow maa laajte nii Korka xanaa ma laajte la ko River Gambia fu mu jógee Korka. waaw léegi ban river moo gën a gudda si si river yëpp. man bu ma xam. waaw xam nga Mikayna Doyen. Mikayna Doyen. non si si Afrique laa wax. ah Afrique. waaw mu wax la ah. Ah, ok léegi ah, mbaam ak fas lan moo gën a gaaw. mbaam ak fas. Korka fas la. mbaam dafa yee. mbaam ak fas gën a intelligent. fas la. maa la wax loolu jëlal boobu. Modou. Modou Baji. Modou Baji. Wow. Which river is the longest river in Africa? I don't know. Huh? I don't know. <laughs> river Gambia fa la jógee. Budajalon Highlands. ah. maa ngi leen dama ñëw si fii la garage river Gambia fa la jógee. Fouta Jalon Highlands. ah ah ok thank you. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Bro naka. jaamu rek. Bro yaa Bro naka. man Modou Lamine. Modou Lamine. waaw. ok Modou Lamine. river Gambia bi fa la jógee. Uh, futa Djolo Highland. Hmm. ban river moo gën a gudda si Africa. river Naya. ah river Naya. river Niger. Hmm. Hmm. ah ok who is the last king of Mali Empire. the last king of Mali Empire. yes. no I don't know that one. you don't know. yeah. ah okay waaw okay. Yusuf, yusuf yusuf yusuf waaw yusuf kan mau nekk di last king of mali empire bro yapa ya yaadura naka man mohamed mohamed mohamed ah River gambia fala la Tanji tanje ah tanje ban River mau gën a si africa africa atlantic ocean ah atlantic ocean Uh, ah, can Monega the of Mali Empire? Mali. Hmm. Sama uncle. <laughs> Ablaye Diallo. koto nag. Di moom suma waay la bu nag boo dañ ko puus sax. Ah. Dañ ko def nii rek ma xool sax naka la sax. Baka wool man. Boy Gaza wise bro yaba. So naka job bi. Mu si kawam de ah. hmm. Ah, say nak am ngeen nak def dee dooleel youth yi tamit soo gis ngeen muy amee gambien yu bari fii nii ñu ngee joob ak moom so bro lan nga am pour wax gambien yoo xam ne ne booy ñu ngi toog koñ bi rek ah, di def na nag naka sudul nu toog without liggéey moom amul njëriñ as a youth man moom warloo toog sa di xaar ñu al. wane liggéeyal yeah because so liggéey do survive de si génération buñ nekka nii mom. moom liggéey rek mo la mun a free ëllëg soo demul school mom liggéeyal waaw jàng métier am ko So teg bro Ah, riva Gambia bi fa la jógee. laaj ma liggéey lool la xam. kan mo last king of Mali Empire. laaj ko gay, laaj ko boy si man ma hi bo ba ngi fess mu nekk di. waaye aywa say nak job kat la holen leen ngeen ko holal bo yu bari ñu nekk si mom len job so façon ñi nit yi lañ war am ci dëkk bi. waaye naka ay mag ji yaa Ya, yaa baax. gën ya ya ko bro. ah Omar maa tura ah, baabu gar. Yo lo nekk di def job la nigga is yeah yow nga gisee job bi ah job baa ngi over cool sax hmm. mu ngi over dox lan nga lan lan lan la nga am pour wax si boo yoo ne ñu ngi toog nekkuñ di job ñu ngi wóor rek waaw ñëpp a war a ñëw si hustling field bi xam nga ah. waaw ñëw hustle ko ah, ah, River Gambia bi fa la jógee ah bro ara nga laaj bro River Gambia fa la bi moom nag which river is the longest river in Africa in Africa Ah, for now Burkina Faso. Like. Ah. Yeah. Ah. Who is the last king of Mali Empire? Bro, bila yawa kalawe. Oh, sister, nakam. Stay again nice day. Derejef. Derejef. Stay atro nakam. Yahadi. Yahadi. Wa. you yolo nakari defi. suma <laughs> motor mau am tuuti problem ah waaw. ok ya di ban river river gambe bi fan la jógee. <laughs> Korka ya xaaral xaaral. Wah river gambe fan la jógee dinañ ko defar buru wari. Hmm. river gambe bi fu mu jógee. Jala. ah wah. which river is the longest river. River Nile. ah <laughs> River Nile. ah yo yaa ngi de who's the last king of Mali empire. Sunjata Keita. ah wala sista bi dafa garaaw de kii star la de hello. hi. Nagam. My friend. what's your name. Jalika. Jalika. Okay. Uh, which river is the longest river in Africa? E River Nile. Hmm? River Nile. <laughs> where, where, where, where did River Gambia come from? No. Hmm? No. You don't know? Uh -uh. Who is the last king of Mali Empire? Sunjata Kate. Thank you. <laughs> My name is Adulaim Hujari. Adulaim, are you going to school? Yes. Which grade? F five. Huh? Five. Grade five? Grade 5? Yep. Ah, okay. Well, spell my 5. F. I. X. X. F. I. V. E. 5. Spell alma 2. 2. T. W. O. 2. Spell alma 10. T. N. 10. Bas ko nga nekk? Laatu kunda. Waaw ah, kii kay laatir kunda rek la mun a nekk jërëjëf. Waa léegi yow ma question boo ma bëgg a What is your name? My name is Abdullah Korkaba. The Gambia flag. What do you mean? Gambia flag, Nyata flag Nyata lan? flag. Nyata flag. Kola wala flag? Kola. Ah? Kola. Nyata kola? Four. Ah? Ñaata dalasi ñoo fa nekk. Fan? Ñaata dalasi fa What do you mean? Na ñaata A hundred boutique moo one dalasi. Spela ma ma Ah? no soo ma le five dina la spela loo ma mun di e laaj. dominic dominic ana rapa nga. amay ma dominic may ay waaw sama buru bi de. waaw doo leen may wa do ma booy bo nga jël sama mburu bi. waaw waaw ya, mu ko kon le yana lo bëgg ma fay ko. no bu ko fay bu ko fay. Dominic dominic ma diga nga ma xool nga ni King Kong duma Johamba, fama ya fikina bon. Hmm. Red Batman du Musa ñàkk jom pas que mi digi leli fuma parti ki mon deman hmm. joxe watul benen ma may la son top ah, nga may ma son top waaw neena diga ah, ah wal ma diga hmm. ara ara mm-hmm. rappal benen va parere amisa change system amisa change system oril batman change system amisa change system amisa change system oril gangster change system nyaman kula boy ana nga gene album sot la sot la sot la ni rek yeah boy wa yo batman nga re batman ting Batman musicien. waaw ala son top son top yaa dama indi la benn son top. ñaar ñaar ñaar waaw ba ma jox la benn rek pour ñu beneen keneen. mooy loolu Traoré bro nakam bro yatoro nakam Ams Ams waaw Ams Gambia river Gambia bi fa la jóge non boobu xawma ko ban river moo gën a si Afrika bi laajal boy please kan moo nekk di last king of Mali Empire laajal boy please dama bi mag ji yaa ngi baax maa ngi cool yatoro yeah Cheikh foo bàyyi ko man Senegal. ah yeah ok ah, kan mooy premier président Senegal? laayaat naa la ko premier président Sénégal xamoo ko. xaw ma ko laajaat naa la ko delluwaat naa la question bi. Sénégal premier président Sénégal xamoo <laughs> mooy capitale yi Sénégal. Dakar. ah, ah waaw kan mooy mairie Dakar. mairie Dakar. xaw ma ko wax dëgg yàlla. yaatu <laughs> aji nabu. aji nabu Riva Gambia bi fu mu leen jógee. ah xaw ma ko. <laughs> ban Riva moo ma. kaga ha ah, ma bello ko ka liggéey ma ini. ni dem ni yow ma ko salaamaaleykum bro naka waaleykum salaam yaa tudd Lebar satu. ya ya damay lebal ya so xam ya sondop da ko dee jënd ak ya ya okay yow river Gambia bi fa la jóge Futa Ya. which river is the longest river in Africa Not to my knowledge. Who is the last king of Mali Empire? Um, Sunjata Keita. Huh? Sunjata Keita. Mm. Yeah. Thank you. Thank you. you know this? You know this? <laughs> yeah. You used to buy it for kids. Okay. Mm. I want to ask you one question. Okay, what's your question, sir? Okay. What do you think could make an individual so happy and then feel so special? Freedom. Freedom, are you sure? That's it. Are you sure? Of course, son top bro xam nga son top. waaw am naa son top. da ko dee jëndoon du yéen a. waaye dama ko dee la nga naan ci. waaw soo si may dinaa jël moom. yaa tudd <laughs> Sukur Mbaye. sukur maay. waaw kon yow sukural ñu nak, laaj laa. waaw dis nag moom waaye sukur maay ak moom. waaye ñu sukural rek si maay bi. non lan nga bëgg ma sukur. bro River Gambia bi fan la jógee. loolu mi River Gambia bi fan la jógee. waaw Mouth Sauce bi mu ngi nii fii nii si Atlantic Ocean. mu daw through River Gambia. fan la from Denton Bridge all the way down to Basse. fan la jógee wax ma la fu mu loolu natural creation la fan ban dëkk la. loo min ban la ok ko bind nañu fekk ko fii. waaw which river is the longest river in Africa. ah definitely I don't know the longest river in Africa. Ah. absolutely but xam naa ne Gambia runs like 11 meters square. and river Gambia starts from Denton Bridge be uh, base so it could be you know one of the longest rivers you know in West Africa in Africa. Ah. yeah <laughs> well it could be. ok waaw uh, who is the last king of Mali Empire? The last king of Mali Empire. Uh, wow, boy, yang mau buka, yang mau buka drag back to school days deh. And then Sunjata Keta is not Sunjata Keta, Sunjata Keta, Sunjata Keta. Either Samori Kante or Sunjata Keta, Sunjata Keta could be Sunjata Keta. Ah, Samori Kante. Legi wake at is a legi Kingland. <laughs> Bro, ya apa?

Phenomenal Woman is up and running now. The gym membership is now at $2,500 per month. Get 25% discount on all salon and spa services purely for you women. The All Women Gym is equipped with state of the art facilities. A personal trainer also awaits you for all your fitness needs. Rush now and get your gel nail extension, manicure and pedicure, facials, massages, wax, body and hair treatments for 25% less. Multiple services available for you all in just one building. For more information, call 533 2732 2984 or 359-7777. This service is valid until August 31, 2022. Do not miss a special opportunity this summer. Phenomenal woman for you. mooy loolu uh, sponsored by uh, Suntop doy dem leen ngeen jënd son top eh, yaay ba da ngay jënal di ndoy waaw son top so yaay ba kon man may ben nga nana go bro ya tole man bu wakar bu wakar waaw ok bro ah river gambe bi fa la jogi ah futa jalon highlands sen guinea conakry in guinea hmm. which river is the longest river in africa longest river. Well, I don't know. Yeah. Who is the last king of Mali Empire? Mm, it's Sunjata Keta. Thank you. Asuman Group Conte, yeah. Bro, ya, yeah, ba. Bro, I'm not gonna. I'm not gonna. Bro, I'm mm. not gonna. Stop talking. So yeah, okay. My cool. Mm -hmm. River Gambe from Jogi. But what come and do my school? Mm. No, no, Manjanguma. Mm. No, no, no. You're already man pentaman la ah. mm -hmm. ok man ma primary kolosi primary kolosi wow. eh boy man na deuma school de kor ka luma la wax de ayo so nekké pentaman war nga am primary kolosi fuma nekani pour ma jaa ma def ci wol bi rek la mun ayo yo na di nga am contrat yo primary kolosi sax amul kor ka ci contrat la dika anga ñun demu school ñun suñu jang sorout wa ñun suñu jàng no nursery school la am tu two wa ñata ko la ñoo nekk primary kolosi No, exactly Hau mako nak waaw dama gis ñu amé son quick sere xanaa bii bu dee son quick la won nak son quick la woon. ku ko jënd yo non ah, non non non jënduma ko. yow suma gars yi street talk lañ nekk di def nak fekk neen ataya bu neex nak ñu ci naan waaw. xamee ñu bëggee ci tamit nak suma old friends yi ñu fi ñu nekk di daw ak ñu nekku di daw yépp suma old friends leen. mën na la may juus kay. waaw waaw. Ah, dañ leen naan bi. waaw di. ah. waaw da ko dee jënd xale. waaw waaw. Ah. bës bu nekk. ana jola nga. man pol la. da nga tudd man eh. Mariama Mariama naka Diallo Mariama Diallo waxal ma nee na fiti faata faati si Paul hee ni fiti fa si Paul waaw waaw hee su ma la waxee da ngaa jooy waa rek ma waxee da ngaa jooy waaw ma ma juste ma jóg suma doo ba wax la ko da ngaa wax loolu de dama jóg jaboot ah waxal nee na fiti faata faati ni di faati faati hee ni faati faati assalamualaikum bro nakam so den xam nga so doro ebe def de def am kani ma doro la ben sontom gan nanti ye ye den de jenal doy sontom waaw waaw hmm, ya doro nakam fam fam bro gambia nga gambia la di difa gambia bi fa la jogi nga ne difa gambia bi fa la jogi bandu la jogi di ah no how de xawma de xawma xawma ye ban rifa mo gëna guda africa yeb no dama nak bu xamako kan kan ma di last king of mali empire mali empire

man umi Sala. umi Sala. wow. Sala Ngari. waaw yaa ngi lam toro buri gede. ah waaw. tàggat sa bopp ute nga booy bii de. ah kay sa caméraman bi. ah anti River Gambia bi fa la jógee. Gambia bi. ah foog naa si. River Gambia bi si um, uh, Atlantic Ocean bi. I think foofu la jógee de. Ah. waaw. ban river moo gën a gudd Afrique Africa Afrique ah boobu ci moom moom Korka boobu fàtte naa ko waaw boobu fàtte naa ko. last king of Mali empire. last king of Mali empire. Sunjata Keita. waaw I think. waaw ok jërëjëf. waaye suma Korka street talk la. anti toj na fi nag. son top.

te baax trop te neex na tamit. na kan moo di last king of Mali am. ¿eh? ma laajte de. oncle pare. Ya, oncle yaa tudd naka. man Aliou Kora international Jato. Aliou Kora international Jato. Wow. River Gambia fa la River Gambia. Ah. Fouta Jallow. Mm. Wow. Okay. who is the last king of Mali empire. Mali empire. Mm. No, loolu xaw ma Ah, ban river moo gën a gudda si Afrika. ban river moo gën a gudda Afrika. Ah. Fouta Jallow Island. waaw encore naka encore naka man kala fa sonko ok ok sonko rifa rifa gambe bi la jógee rifa gambia rifa gambe fu mu ah I, <laughs> I, don't know who is the last king of Mali empire the last king ah uh, I'm not a historian uh, <laughs> yeah really ah, okay uh, which river is the longest river in Africa uh, kay moom river Niger ah river Niger non waaye ma ñëw si oncle salaamaaleykum oncle naka. maa ngi baax yaa tudd naka. man Assane. ok ah, ban river moo gën a gudd Africa. river river Niger. Ah. who is the last king of Mali empire. Sunjata Keita. wala Mansa Musa Mansa Musa. waaw. ah ok river Gambia fu mu jógee. Uh, river Gambia mu ngi jógee Fouta Fouta Jalon. Ah. Fouta Jalon. Hmm. thank you. koo xam ne rap la na ma ñemeñ mu ñëw. ku fi daaxa rap na ñëw ma defal ko bagage lan nga yaa naka man madura Timeless Timeless yeah Timeless River Nile eh, eh, eh, ban river moo gën a si Afrika yëpp ban river moo gën a gudda Allahu akbar kabira laaj nga mbottu geenam de hmm so kamu? No, kamu? Kamu ya ka mooy xadi last king of Mali Empire Mali ha ah? est-ce que du suma maam maam naka la tudd Salimata Faye Yeah, okay. Yeah. What's your name, sir? I'm Bubakar. Okay, Bubakar. Where is the River Gambia come from? Uh, from Futa Jalanthaya. Mm. Yeah. Which river is the longest river in Africa? Uh, the longest river? River Nile, eh? Hmm. I stand to be corrected there. Who is the last king of Mali Empire? Uh, the last king? Yes. Sunjata Thank you. You're welcome. Yaman, man. Sumagay, Korka Street Talk la. Another time, another street talk, another Korka Street Talk. Moilolu. So our question today was, uh, where is the source of River Gambia? the source of river Gambia is from Fouta Djallon in Guinea Conakry lu ñu doon laajte rek mooy ah, river Gambia bi fa la jógee river Gambia baa ngi jógee Fouta Djallon Fouta Djallon la jógee fële ca Guinea Conakry foofu la river Gambia bi jógee incha allah street talk dineen dem ba river Gambia bi fu mu jógee ñu indi leen ko ñu woon leen ko street talk rek lu ñu wax rek dañ ko dee indi mooy loolu so su ma nag ah, the other question was which river is the longest river in Africa the longest river in Africa River Nile is 6,650 kilometers. 6,650 kilometers is the longest river in Africa. River Nile is the longest river in Africa. 6,650. So it's longer than River Congo and River Zambia. So mooy loolu rek lu ñu doon laajte rek mooy ban river mo gën guda Africa yëpp. moo nekk River Nile River Nile ah, guddaayam bi mu ngi nekk 6650 6650 kilomètres loolu moo nekk guddaay River Nile bi so moo nekk river bu gën a gudda si Africa so suñ fa jógee tamit ah, we were asking who is the last king of Mali Empire ha everybody was saying Sunjata Keita Mansa Musa yes because of they popular yeah the last king of Mali Empire is Mohammed the Sixth Not Mohammed, King VI of Morocco, but Mohammed VI is the last king of Mali Empire, Mohammed VI. So lundo la doon mirek tamit kan moo last king of Mali Empire kooku mo neka uh, du Sunjata kita, du Mansa Musa so ang nga nyonyo ñoo popular so the last king of Mali Empire is Mohammed VI waxuma la Mohammed VI of Morocco de Wa Mohammed VI of Mali Empire kooku moo On the last king of Mali Empire so mooy loolu Korka Street Talk li laa leen amaloon ñu sponsor bi nag ñoo nekk ñii ñi nga xam ne ne ñooy Moustapha Ji jaalo and Sons dem leen jënd son top son quick commando mojji mayonnaise yëpp am nañ ko lekka bi foofu la baaxee foofu la yombe xale yi daw leen ngeen jënd son son top ak son quick woo neen naa leen son bi ni ko dee naa ne maa yeneen fii tamit son top Korka Street Talk nag dinañ amal benn benn news segment boo xam ne ne loolu moo nekk ah, surprise visit surprise visit bi dinaa dem si kër bu nekk ma may leen son top action quick so suma cameraman bi ne ko on Moussa Baldé the smallest and the chickiness the tiniest cameraman dañ ko bañ sax be suñ boss def day wax ne bu enu Moussa Baldé camera yi pongali bala mu dama suma driver bi tamit moy driver bu gëna a skinny njaga so tay suma team bi ñepp skini skinny dess man man mom ma ngi pongal right so suma editor bi tamit nag moo nekk Assane Assane Koli moy lolu rek so Korka Street Talk la won see you next time sponsored by Mustafa Ji Jallow and Sons son Top, son Quick, Commando Energy Drink. See you next time. You know what? I have to say bye-bye. Bye-bye, Musa. Eh.